exactly it's 3 p.m. It's, uh, it's all about life story uh, life my life in the ghetto ñëwaat nañ fii si beneen extended fii si Douane Banjul first time first stopping by ñu ñëw fii si e Douane Banjul uh, moom mooy suñu first stopping by uh, si si ghetto life bi rek uh, laa leen combo but moom mooy suñu first time ñu ñëw fii combo la nekkoon rek but xam naa ne suñu paree Banjul fii dem dina daal di dem Baara so Banjul la nekk nii si ghetto life story si season 5 episode 1. waaye ñu dem si biir ñu laajte youths about live life in the Gambia xam na ne comme xam nga without youths ak content without youths moom mooy loolu soo dinañ daal di doog dugal si biir youths yaa ngi foofu noonu keroog baa ngi foofu noonu ñu daal di waxtaan ak gars ñu laajte leen about living life in the Gambia about youths in the Gambia um, um, um, uh, lu waral youths yi di bàyyi Gambia dem daal di Europe uh, mooy uh, baagoy bi daal baagoy bi di dem ba Europe lu waral youths yi Ah, ñi ampli foofu na ne comme ñu ne Gambia soo fi nekkee amuloo fii soo boy seulement gërëm story rek maa laa fi ni Gambia rek ah, fii si Doyen Banjul season 5 épisode 1 toore 2 si second épisode lañ nekk nii si si Doyen Banjul dinañ waxtaan na Youssou yi tamit ah, ñu ma laa seen about living life in Gambia maa la seen xarit seen soppe Youssoupha Ndour toppale ma seulement gërëm la story righteousness is all I know. I know you for the end, doing my act. After with the microphone and my guitar. Just to teach the youth about the reality. Don't realize the system of the society. Don't realize the system of the propaganda. Don't realize the system of the politician. Don't be stupid, don't be crazy. Yeah, yeah, yeah. tur bi. waaw man maa ngi tural Salifou wow, wow. Wow, waaw. Wow, waaye waaye da nga foog dama bëgg a cross Niza. sax still now ben tey féeri amul tam baa ñu waxtaan ak yëfi féeri ñu start ko foofu <clears throat> ko sometimes sax dama day bëgg a jaala ah, dafay nekk problème boo xam ne um, dafay hectics every ah, bi problème bi féeri bi si stock si ndox bi dem nga ma ay lives yoo xam ne it's too much thousand of lives si biir ndox féeri bi eh, si biir ndox bi foofu noonu um, last time sax lu happen tam boo tam another uh, story la so wax ñu à comme yaa ngi jaala yaa ngi ñëw stock fii nii amuloo ah, um, amuloo féeri xam nga boo te yaa ngi oor xam naa ne tamit wéer ko lañ nekk. waaw ah bro doo buggee dëgg dëgg rek dëkk bi moom doxut waaw yaa ngi ji since boori maa ngi bugg a jaala so mënumaa jaala fiir yaa ngi nii amul xam doo ko xoolee ba xool ñun Gambia fan lañ nekk di dem dafa woos xam nga doo xoolee time Yaya Jammeh système bi yëpp mu ngi kuuloon waaye after Yaya xam nga système bi yëpp dafa ceeñ xam nga si léegi da ngaa bugg a cross ah, doo mun a cross xam nga bilaay dafa néew da wax nag Gambien yaa ngi dunda dunda bu métti nag. Eh, digga digga government dafa war a dimbale nit ñi nag waaw daf ñu war a óoba dimbali sax nit doo ko xoolee things nekku di dem comme ni mu war a mun a demee xam nga seetal rek xam nga war a cross sax doo mun a cross xam nga war a jël gaal après gaal bi tamit mu ngi mu ngi óoba seer sax xam nga danga ku la war a ku la war a defi nu waaw soo yaa war a fay 20 nga war a fayaat gaal 50 nga war a fayaat 20 again xam nga soo easy wut xam nga yow féeri bi la woon gars yi jël bi xam nga doo ko yokkee sax fekk sax dëkk baa ngee dox xam nga waaye yow nga yokk a fiiri bi pare style naaw benn tey fiiri bi ko regul xam nga Gambia dëgg dëgg nag booy bilaahi système bu nekk di système bu woos leen nekk di demee. so est lu moo lu moo tax ndaw yi bari di bàyyi Gambia nga songa songa ko nga foog. waaye doo ko xoolee ba xool seetal rek système bi fii mun loo koo méegee ni doo xoolee tey lan la ñu lan la ñu government defal xam nga ni ku nekk war ngaa taxaw nga baaku nga ne ma su ma dëkk lii la ma defal waaw ñun tey Gambien government bi nda lan la ñu war a wax ne ñun lan la ñu lan la ñu lan la ñu defal dara nit yow doo xoolee bee xool Gambia fii booy yi buggoon nañoo booy yi buggoon nañoo liggéey booy yi buggoon nañoo nekk si dara xam nga waaye ñoom lan lañ ñu gaay lan la ñu gaay defal loo xam ne Gambien yi war nañ si mun a taxaw xam nga ñu ne dëgg-dëgg government lii la ñu lii la ñu gaay defal dara yow doo xoolee bee xool Gambia fu mu ne nii yëpp politique la politique rek lañ nekk di dundee waaw wax bi yëpp politique la def bi politique la UDP nii MPP nii rek la rek la rek la gaay nekkee si dëkk bi xam nga yow doo xoolee dëkk bi doxut xam nga seetal rek xam nga dunda baa ngi seer xam nga amul kenn ku si génne sa ku wax xam nga. soo nga foog réew mun naa dem witaat yuut. ah non si ñëw mun a yóbbu dëkk bi waaw doo xoolee ba xool dëgg dëgg ndik doo xoolee paa ñoom pare nañ si waaye yuut si ñoo war a nekk ëllëg kilifa yi waaye seetal rek nag gof min dañ nekk di dimbale yuur si dara dimbale wuñu si dara waaw soo doo gisee tamit booy booy booy booy booy tamit di jël risque tamit di dem xam nga bro doo bëggee dégg dégg dafa métti xam nga du nekkoon ne Gambia mu ngi kuuloon kenn du dem fenn waaye dafa kuulut moo tax booy di jël seen risque di dem ndig fii doo doo fi nekkee fii mun loo ko méegee doo xoolee ba xool seetal rek yow da ngaa liggéey ñu laa fee 3000 wala 3500 dalasi yow every day loo war a dundee calculer ko ñaata la loolu doo ko waree mën a jël nga calculer ko si moon loolu ñaata la yow nga war a taxaw ñu la fay 3000 wala 4000 nga am jabar am doom ba pare courant baa ngi seer lépp mu ngi seer nga yow fii da loolu da ko war a mën a dundi net waxante dëgg rek ba pare ñoom ñu nekk si kaw ñu leen a fay ay 75000 100000 ba pare ñu nekk si suuf ñu leen a fay ñaata 3000 3500 dalasi ba weer kooku ndax kooku dafa war a mun a ndax ndax kooku dafee mun a amee dara munu fi amee dara xam nga soo neen wax de dëgg rek. soo seet <coughs> la moo détaillé ci yeneen euh, youths yi nga xam ne teacher leen dañ day drop bi jaar yu xam nga mooy yoon bi jël yoon bi mooy baaw bi te ñoo ñu ngi liggéey ñu ngi teach ñu ngi leen di fay salaire nga foog si yow sa xalaat lu moo waral loolu. waaw mooy lu ma la wax rek doo xoolee bi xool fii da nga ko fi mënut a méegee waaw et pare doomi nit koo gis ku nekk da nga bugg a live a better nga liif tamit e good life waaye fii fii nii amu fi am yow da nga war a eew nga ji sa sister si nga gis sa yaay nga gis sa papa yi soo yow lan nga leen mun a defal dara am soo dafa miiti nag xam nga et pare koo gis ku nekk tamit bugg naa nekk tamit si dara waaw koo gis bugg naa nekk si dara waaye billaahi système bi nu moo demee dëkk dëkk kuulut waaw. yow la ma sa su gox mi amee gom-gomboo nag yu si dañu si les nag. non non ah, mooy lu ma laa wax rek ñoom government government ñoom du ngaa waxee ne yuut si nangu ñëw nangu ñëw liggéey man wax boobu si wax boobu tamit agréwu ma si léegi foo fii koo fi ku nekk bugg naa nekk si dara waaye tey government lan la ñu lan la ñu defal loo xam ne war ngaa taxaw nga ne dëgg dëgg government ni Gambia bi lii lañ lii la gaay nekk di def yut si dara doo buggee dëgg dëgg billaahi walaay talaay defaluñu defaluñu dara waaw tey na Adama Barrow taxaw di wax ne yéen yuut si defal naa leen lii ah, bu leen dem baag wi nu ñoo wax dara loo xam ne defal nañ ñu ko billaahi wala ay ay lan la. kon la moo tax yuut si ñu ne def leen Adama Barrow daf leen feel. ah waaw seetal rek Adama Adama Barrow man sànni naa sànni naa ko karta xam nga waaye tey doo gisee tey sànnil bu ñu ko sànnil sànniluñ ko nii waaye seetal léeg tey Gambia booy fu ñu toll woon Gambia ñun fu ñu nekkoon ak léegi xam nga ñun bëggoon neen bëggoon neen ceeñis waaye ceeñis fu mel nii dëgg dëgg bëgguñ ko ñun time yaaya tey doo doo xooloon système baa ngi kuuloon xam nga da ngaa mun am 50 dalasi sax nga dundee ko nice waaw xam nga soo da ngaa gis ne doo yow du nekkee sax amuloo sax waaye danga ngaa mun a dunda nice waaye seetal léegi léegi pratiquement loolu rek ñaat ñaata la moo jar léegi bidon yi bidon yi ndox bu ndaw rek ñaata la moo tam nga booy bro doo xoolee bro nu nekk di dundee dafa métti e eh, nu nekk di dundee moo métti government tamit dañu war a xam ne tamit dëgg dëgg ñun ñoo leen fo teg ñun ñun ñoo tax ñu nekk fa ndax ñun tamit lan la ñu gaay defal xam nga lu ma miin Adama Barrow ak ministre yooyu yëpp nekkaluñ fa seen boppa pour ñun la ñun ñoo tax ñu teg leen fa tey ñun leen war a ñun leen war a liggéeyal waaye tey ñoom ñu ngi live a good living ndax ñun tey Gambien yaa ngi live a ñoom tey ñu ngi am seen moto fu leen neex ñu dem waaw dugaay it feebaree sax Europe la ñoo dem fajoo waaye tey xoolal rek tey ñun tey ku si feebar ku nekk lopitaan ngay dem yow doo demee lopitaan sax dangaa dem nga jënd lan dan laa bindal ne la demal pharmacie xam nga yow doo nday waaw nday yow pharmacie bi tamit doo amut xaalis ndax da nga ko da nga ko war a mun a afford doo gisee tey gars yi di wax dee bi dafa bari dafay dee bi dafa bëri loolu la léegi-léegi da mun a toog nga war a faju sax doo mun a lifin faju li xam nga faju bu lifin correct xam nga dafa métti bro ñoom ñu nekk si kaw rek ñoo nekk di enjoy ñu nekk si suuf ñoo nekk di dee Gambia ñun livin boobu leen nekk di livi waaw soo doo doo tey seetal rek boor yi yëpp a collapse tey doo xoolee tey si béy bi doxut doo xoolee tey féeri doxut airport bi doxut waaw tey Gambia tey lan am nga soo waaw lan moo nekk di dox Gambia dara dara ne ko di dox nen waxante dëgg rek bro ñun tey dëkk bi dëkk bi mu dox ñun loolu ñun loolu leen buggaan rek ñun Gambien leen fii leen juddoo fii leen yaroo xam nga lu ma mii de pare tamit xamul fenn fudut fii tey na Gambia dox moo gën waaye tey doo waxee ñu ne la kii politicien la kii UDP la kii MPP la kii lii la de lii du mbiri UDP du mbiri MPP li mbiri Gambia la ñun ñoo bokk Gambia tey du tey du Gambia doxee ñun loolu lañ bugga xam nga waaye dëgg dëgg Gambia doxut bro Gambia dafa doxut nañ waxante dëgg rek billahi Gambia doxut da loolu lañ bugga mu dox waaw. so yow yow di nga nangu nañ suñu ne soo déggee ñu naan yu si Gambia yu si dañu happy waaw ah, tamit yow nga ne moom <laughs> saabali lu moo wax noonu rek saabali sa bokk na sax lu gën a tarteloo Gambia yow doo xoolee saabali politique rek la nekk di indil Gambia yow doo xoolee taamil taamil taamil liggéey sax saabali si politique. xam nga doo xoolee bee xool Gambia saabali sax bokk na sax lu gën a tarteloo Gambia billaahi walaahi talaay ndig lan politique rek. xam nga politique dafa war a am time time politique am na ak time boo xam ne du time politique time bi sax nekkul time politique time bi time liggéey la du politique jote ñu ñu lifin politique. waaye seetal tay mi liggéey sax mu ngi mu ngi mel ni ñu ngi nekk si politique. am nga soo am nga is wut Sabally sax bokk na sax lu gën ter terdel loo Gambie ndig lan politique rek waxam yëpp politique ak lu ak wax boo xam ne moom si boppam sax xam na ne lu ma wax noonu amut. bro ima ima boo nañ waxante dëgg rek moom si boppam sax xam na ne lu ma wax noonu waaw fii ban ju sa bi doo déggee tey nga ne la kii dafa happy wala kii dafa kontaan da ngaa da ne lan moo tax mu kontaan waaw yow tey jur si dañ happy waaye yow mun loo ñëw wax lan moo tax ñu happy da ñoo wax lu tax ñu happy waaw waaye yow nga génnee rek indi sa wax rek yu si den happy den happy foo war reason ñu war a happy da ngaa wax ne lii moo tax yu si ñu happy am na am na yenn way yoo xam ne ay waxi naxaate la rek waaw léegi waxi naxaate bi moo war a mun a jee xam nga lu ma miin Gambien yaa war a eewu Gambien yaa war a eewu léegi di taxaw di la nax ay waxi waxi nax kii di perab dañ ko war a mun a jël ñu paate ko oras dangal ma miin léegi ñëpp a ñëpp a war a awiya ku nekk li ngay yëg ku nekk ak li ngay daj yaa ko xam xam nga lu ma soo léegi kenn war na mun nax kenn du nekkee ne Gambien ne dañ happy wala yuusi dañ dañ happy loolu amut billaahi loolu loolu amut fenn du waxee loolu tamit amut waaw ndig doo déggee nga la diw sangam dafa happy dafa am lu tax mu war a kontaan wala lu tax mu war a happy happy happy ban lan lan lan moo ñu war a happy loo. so yow soo amee doole boobu noonu comme nga ñu ne nga seen dara Gambie nga foog la war a seen Gambie yow nga am super power am nga tamit doo xoolee tey doo gisee tey Gambie tey mënut ta dox. Adama Barrow dafa ñëw mu ne waaw a new government understand nga a new a new wax ñun tamit dégg la bëggoon neen changes waaye doo xoolee a new a new government xoolal tey port bi rek port bi tey ñu fa nekkoon time Yaya Jammeh benn tey ñoo fa nekk féeris tey du fa nekkoon time Yaya Jammeh benn tey nekk army bi tey ñu fa nekkoon benn fa nekk police tey ñu fa nekkoon benn tey ñoo fa nekk système bi tey ñu fa nekkoon benn tey ñoo fa nekk soo ana ñu Gambian doo digg tamit nga la nu nu mu tuddati système bi dafa dafa war a change doo ñëwee toog da war a change système bi yëpp nga indiwaat système bi mu ees mu mu mun a dox waaw yow time yi Yaya Jammeh Gambien yi dañu waxoon ne ah système yi bi doxut xam nga ma miin loolu moo taxoon Gambien yi bëggoon a change waaw waaye doo xooloon système yi Yaya Jammeh bi sax mun doon dox waaye dafa fekk ne comme lu mu doon def la rek après doomi doomi adama boo gis bu nekk foog tamit nga def sa mistake amul benn nit koo xam ne doo doo def sa mistake waaw waaye yaayaa moom dëgg-dëgg liggéey na waaye Gambien yi tamit ñoo bëggoon changes boo xam ne ak liis xam nga dinañ mun a gis beneen government boo xam ne bu tane bu yaaya waaw waaye tamit Gambien ne try nañ ba changes am xam nga waaye tamit du changes amee yow tamit yow mu yow mu nekk si xeet bi danga war a try nga change waaye seetaan rek ñu fo nekkoon benn tey ñëpp la Adama Barrow jël indiwaat leen soo dafa mel ni xeet bi rek moo change waaye still now benn tey benn benn système bi rek moo fa nekk waaw tey doo xoolee to xaw ma faa tomb xaw ma naka tombong kooku sax kooku sax xaw ma ko kooku kooku benn tey moo fa nekk nga jël ñoom Sidi Sidi Ndiaye indi leen indi leen fa indi ñoom njóogu ba still na benn tey système bi dafa ceeñ ceeñut dafa fekk ne yaayaa rek moo ceeñ waaye système bi benn tey lu fa nekkoon dafa neka dañ ñooñu doo buggee dégg dégg dimbalewul araba boro ñu lu nekk dégg lu gaay di lifi ni yépp so so xana xana yursi mënuñ ni comme dar yu nga nga def fofu xana yursi mënuñ façon liggéey xana yursi jangu demuñ school at xam nga mënuñ nekk ci bi groupe bi ah, okay ah, okay mën nañ ko def do xolé tay yursi ñoo na jang ñooñu tay yursi tay luñ jang ak luñ xam pa yoy ñun xamuñ ko pa yoy jangoon nen waye tay yursi leen gëna janga waaw waye tay moy luma la wax rek ay mbili politique la rek ñomi neen la rek kabudu la rek kabadu boo xam ne doo nekkee si biir ñu jël place jox la waaye tey juste ñoo gënoon a jàng ñooñu téeméeri yoon tey ñooñu ba ñooñu ban jàng lañ jàng ñooñu jàngun waaw yow tey doo tey tey doo xoolee tey si government Adama Barrow bi yee gis naa mu appoon kii nu mu tudd sax Ismaila xaw ma naka waa waa waa waam nga waaye tamit da nga a jël tamit nit ñaa ngee nit ñaa ngee jàng ñu ngi am seen kayit da nga leen naa jël nga indi leen si système bi ñu liggéeyal ñu pas yooyu ñaata at ñu si ñu si système bi ñooñu lan la gaay lan la gaay defal Gambia dara stilnaw benn tey nga nga bàyyi leen si système bi dul dox xam nga àdduna nu mu dee doxee àdduna daf dee dem jamono da ngaa ñëw nga indi ko xam ne jamono bi waaw ñi ñoo ñi waaw xam nga ñi seen ñi seen jamono passé ñi seen jamono dafa dafa passé nga indi ñoo xam ne seen jamono leen lifin xam nga waaye tey doo indi doo indi ñoo seen jamono passé na la nga nga indi leen stilnaw benn tey duñ mun a xam soo dañoo réer xam nga ñun système boobu ñu indi da indi ñoo xam ne dañ àndaa jamono système bi mun a dem waaye doo indi ñoo xam ne mais bi ay tatitidi ten ay tatitidi ten xalaat lañ amee système bi benn tey dafaa dellu gannaaw xam nga da jël nga indi ñoo xam ne ak nga soo seen mayn yaa ngee dox après ànd nañoo jamono dëkk bi dafaa dafaa mun a dem waaye doo jëlee nga indi ñoo xam ne booy ñaata at gars yi ñun si ñun si système bi ñu ñu jàngun ñu ñu lan lañ xam politique am nga nga xam politique ak nga jàng du benn soo ñun problème boobu lañ am wa da nga indi ñu xamne ne dañ jang am nañ ay kiit nga tek leen nga jox leen ñu liggey wa do indi ñu xamne ne politique lañ am bro bro du do da nga gis ne système bi politique la rek wala yo yo xam nga lu may wax Gambie raay na politique la rek MPP ni UDP ni kesse mo fi nek wa Gambie moom doxut so so yow yaa a ah, man kay lu ma ah fii fii ko waaye xam nga rek government dañu war a mun a jël ñu dimbale ñu torop government war a mun a jël ñu dimbale ñu waaw man loolu la am lu ma laa wax Adama Barrow moom dëgg dëgg ñun bëggul mu fiil waaw bi ko seedu fiilee Gambia yëpp a fiil ñun lan lañ bëgg a Gambia Gambia mu dox waaw soo na géem a tëraay tamit mu géem a ñëw tëraayal dëgg waa Gambia moom dëgg dëgg miiti na képp ku ko taxaw naan ko ne Adama Barrow Gambien dafa kuul ay yuusi Gambien yaa ngi happy loolu amut yeah Gambia moom dëgg dëgg dafa miiti fii ku nekk li ngay daj yaa ko xam mais bi ñoom système bi fiiluñ ko waaw mbi mais bi ñoom ñu ngi leen a ay seventy five thousand hundred thousand xam nga lu ma miin saaku maalo sax du jëree ten thousand sax ñoom mun nañ koo afoot am na ñoo xam ne saaku maalo thousand dalasi sax munuñ koo afford xam nga waaye dëgg dëgg système bi dafa miiti bro bilaay système bi dafa miiti trop waaw Adama Barrow tamit dafa di ñëw comme time boo def ay house to house meeting di dugg house to house meeting léegi after election bi lan moo tax ñëw dugg house to house yi ñu xam problème yi nit ñi te doon def house to house meeting yaa ngeen dugg di dugg di xam nit ñi di leen di waxtaan ak nit ñi lépp after election ñëw leen tamit ngeen dem how ngeen dem house to house meeting yi understand nga moom ngeen xam nit ñi tamit dunday ban façon dunda lañ nekk di dunda waaye yéen naa ñëw taxaw ñun dafa mel ni dañ dañu dee dañu dee na da ngaa ñëw taxaw nga ne waa élection la ngeen ñëw house to nga def ko for five nga ñëw doo doo doo rek nga falu rek jeex na waaw soo dafa mel na ñun dañu dee nekk di nax yow doo way house to house waaw da nga ko war a def every time ngay ñëw di taxaw di dem si nit ñi di leen laajte yéen lan ban jafe-jafe ngeen am ban problème ngeen am waaye yow doo def dara da ngaa bàyyi ba élection ngeen ñëw ngeen dugg campagne campagne boo xam ne house to house house lifin waaw after den kenn du leen gisati xam soo Gambien ni booy doo bëggee dégg-dégg sonal leen de waaw sonal leen nag dégg nag. waaw dega dega mom système bi nu moo demee moom système bi nu moo nu moo demee kuul waaw. tur bi. Abdoulaye Ba. Abdoulaye Ba. so waa Banjul yeah wa Banjul la. so Banjul sare ko na ndax musuma tukki wala. non musuma tukki. parce que am na tamit Youssou ku am ci ku chapa yoon ko am chance la da nga dem. yeah dega, parce que comme so xoolee comme ñun suñ ewoo sax xam nga lu ma laa wax nii comme dëkk bi dafa miiti xam nga so xoolee situation sa mère amut sa daat amut xam nga lu wax yaa ngi xalaat comme ne ñu ngi nekkoon du xam nga doo dem ba temps bi ngay laaj sa mère bi xam nga man maa ngi nii six kenn suma meer bi ak suma paa bi xam nga gën nañ ma jox comme baasa comme suma gars yi rek xaftaan la comme julli bi ñëw nii xaftaan la wala kom dara xam nga lu ma laa wax nii loolu sax rus naa koo laaj gaay xam nga dëkk bi dafa métti xam nga lu ma laa wax nii temps bi ni ñu waroon nañoo am liggéey am fuñ wéeru xam nga di dimbale suñ mère yi waaye da ngaa sa ndewoo sa problème la xam nga dëkk bi dafa ouvre métti right now ku nekka ya nii soo demee liggéey ba am ay 45 ta fifty thousand tukki nga day xalaat lu génn waaw génn dëkk bi xam nga dem dugg si yoon bi nii xam nga dox yoon Mauritanie bi xam nga dox si yoon bi xam nga so so mën nga ñu wax tax ku am chance rek maanaam ku am xaalis façon xaalis boobu noonu da nga dee doo dee bëgg a invest xaalis si Gambie fii doo ko dee bëgg a spendaat nga ubbi beneen crédit beneen business nga xam ne mën la indil xaalis parce que da nga dee yu si bëri dañ dee gëm ne comme fii moom xanaa nga delloo gannaaw dem kanam. fii dafa over a xam nga lu ma la wax nii fii Gambia dafa over métti dafa over la métti laa la wax nii Gambia booy soo amee fii taw nga ne da nga koo jéem def fii saa xam lu ma la wax nii hard feeling bee yooyu noonu xam nga Gambia dafa over métti da ngaa yore lu ndaw sax yore lu ndaw sax ñu foog ne comme xam nga danga am lu bëri fekk yàlla xam ne ne benn twenty five taw nga am wala comme lu ndaw rek xam nga lu ma la wax nii dëkk bi dafa over métti comme lay gis tukki rek ngay gis. xam nga génn dëkk nii. so so loolu ñu mën a wax comme tukki dippoot xam nga boobu beneen stress la fu naa si yu si tukki ñu dippoot la because challenges move over la because xam nga soo ko su nekkee ko expérience waaye soo ko de la ko waxee nga dee mën a dañ leen mën a wax ne naka la yoon bi mel nga easy wut waaw ah, nga dëgg challenge la laar géej bi tamit boobu beneen challenge la so naka la mu ñu a wax nga tukki dippoot comme soo me wetu ki ba duga fufu nonu fo wara foo war a dem lu tam loolu tam du la bileem si yow la tamit lu dem dëkki jamur tam di def lo xam ni xam nga moy lolu wa comme lu gaa won si seeni deport, wa comme loolu tam yo comme nga gis ah, ñi ni ngay wane yuut gouvernement moo ko saxeen so bi ngeen yu ci dañ lay wane sax nguur bi dañ leen jaay dañ jaay boy ñu pour delu wat Gambia si diga diga xam nga luma la laa ni dañ warona bay boy fofu ñu xosul xam nga luma la laa ni loolu nguur bi waru sa waru warutoon na dugal foofu loxoom sax am nga lu ma laa wax loolu nguur bi dafa waroon a bàyyi booy ñu liggéey am nga ñeneen ñeneen seen yaay si gaay la ko gaay yaakaaree xam nga xam nga lu ma laa wax nii dipoot bi dafa over métti ñu dipoot leen xam nga lu ma laa wax nii xam nga ñaata ni leen dipoot xam nga ñeneen su ñëwee dañ dee dof instant stress bu gaay amee xam nga yaa ngi dem foofu noonu yaa ngi toog foofu ñaata yees ten yees twenty yees nga ñëw fii nii delluwaat back to nga lu ma nii dafa overmeet dang dee dang dee dof dang ma laa wax nii dafa dof booy. so so yow ban advice nga président bi su nekk si wàllum loolu. waaw comme boro moom li ñu ko wax moo na jàppale yu si xam nga lu ma laa wax nii booy ñun ren naaw ñu ngi am karta ñun ñëpp ñu ngi am karta xam nga dafa dafa ñu war a over jàppale xam nga lu ma laa wax nii kon lu ko may comme next next election mooy loolu la. yee mooy loolu xam nga. so so yu si ñi ngi ñi ngi wax ne président bi dafa leen loo loo ñëm naw foofu noonu. ah daf ñu féel li xam nga lu laa wax nii moom lu mu ñu diggoon defu ko am nga lu ma laa wax nii. waaw lu mu woon defu ko xam nga lu ma laa wax mooy loolu waaye na bàyyi xelam ñu ngi amee karta ñun ñëpp xam nga mooy loolu. so yoon yaa advice nga mën a gamal sa mbokk yi yut xam ne xam naa ne soo moto soo amee yoon sax téere da ngaa def damaa dox yee damaa dox su ma amee yoon nii damaa dox yee damaa wufa dox bilaay walaay talaay tey tey su ma amoon baax nii sax damaa dox bilaay foofa métti so wax ñu about Gambia naka la because every day bagage yaa ngi eeg wala bagage yi nga lu sukur léegi mu ngi ñaata saako maalo bidon yi diwlin soble an ah, nga dafa belai walai bilaay wala te eh, menes léegi kuru 15 di la menes kuru 15 di Mura menes 25 five. menes 25 minti léegi 150 la Bena minti ñetti minti pound foo fa métti boy. bilaay wala talaay tey ni so amutee 100 dalasi doo lekk lu baax 100 dalasi kaw doo lekk lu tamu ngamne nga xam ne tuuti da akara nga lekk ba suur xam nga yow muro akara léegi full 50 la xam nga lu ma laa wax 50 la wala 75. so so yo loo ñu mën a loo wax jamono Yaya Jammeh régime ak jamono bi. non du beena lool mo du beena non du beena jamono Yaya Jammeh non du beena Yaya Jammeh du beena boy lu mu bon bon lal woo ma la ay comme beena la ni de julli su joxe ni ñu ñëpp rang si juma bi fini nii ku nekk da am am halis bu doy la la wani suñu mère maire dañ leena naa jox temps bi wéru koor bi ni ku nekk saaku maalo saaku bi do ngi duli lu lu duli mu joxe mu wañi xari am wal mala wani ma bi dafa metti boy fo wala metti so yalla ma sa xalaat kon tabaski ba ngi ñew tabaski baa ngi ñëw gisuloo xar gisuloo xar nga xar ñata la xar so tuindi ci ko do ko xar dafa ser so bu ge xar bu xar bu moma so tuindi ci ko mom no do am xar. xam nga dëkk bi dafa métti booy de ewu nii di sol solu nii rek waaye comme mooy loolu. soo soo yow di nga mën nag di nga nangu nag lu gaa reewaat comme gamins si dañuy si ndax loolu ñu mën a wax foofu. non non lii nguur bi mooy loolu mooy yëpp nguur bi fii moo yëpp gars yi dafa luñ ñu dara xam lu ma laa wax nii. dafa luñ ñu dara. waxuñ si nduga bi waxuñ si dara. soo wax ñu yuut si ak foreigners yi gamins yu si ak foreigners yi parce que ñooñu léegi la si dañu leen gis seen bopp sax ñoo ñooy foreigners yi. xam tamit soo xoolee tamit xam nga foreigner yi ñoo dee ñëw buub xaalis bi yëpp dox xam nga lu ma laa wax nii gars yi ñooy puus puus ñooy ibi fii bitik am nga lu ma laa wax fii ban bitik ngay dem nga ne kii Gambien moo ko moom moom moom bitik bi ëpp doole bi yëpp foreigner yi ñoo ko moom. xam nga lu ma laa suñu bi bi jox place. Rena dëkk bi magasin la. xam nga lu ma laa yi ñoo jël yëpp xam nga dañu war a wax loolu xam nga temps Renaaw terminal bi nii fii ay kër la woon a nekk nit yi fa nga lu ma laa wax nii waaye di luas loolu taxut nga lu ma laa wax nii loolu taxut non ëpp dole bi laa la wax nekk Gambien junoo di luas di fay ay luwaas mel forena xam nga dafa dof. se se wa wa waa Banjul nga. wa so loo ñu mën a amal loo ñu amal tey si Ghetto Life. tey moom si Ghetto Life bi nu ma leen amal mooy lan xol bu set. borom moom ñu wax mi ne. yéen de doomu ma jëlee réew mi di ngeen kontaan naa leen wàññi diwlin beeg saako soble beeg tali bi yëpp naa ko defar loolu nag gis nañ njëriñ bi defar nañu tali bi waaw loolu moom tàncu nañ si vraiment waa léegi na lu des mooy mooy ñun ndaw yi neen liggéey man loo ma si ma wax. politicien bu munti toog bi Gambia moom dañuy wax ndaw yi juus yi ñëpp neen liggéey waa ñu gisuñ loolu njëriñ boobu ñun duñ ko gis. loolu mooñ suñ naxar léegi-léegi yow yow yow dëgg goma nañu ne gamee Youssou dañ happy dañ kontaan ñu ne suñu ne Youssou dañ kontaan yow loolu ñu a keneen ak keneen kontaanut ndax xam nga la moo tax dund baa ngi yokk bagage yi saako la mun na jar five hundred dollars léegi muy jar two thousand three hundred dollars léegi ñoo xool loolu kon amatu fa waaw léegi fu nekk nii ñun nu ñu wax mooy lan nañu jàppale ñun ndaw yi ñu liggéey waaw ñuy dem Europe di dem ak di ñëw nañ leen bàyyi foofu noonu. so yow ma soxla si diport ñuy diport yu si sa programme mu ne ko diport keneen programme mu ne ko diport. lii suma xalaat mooy lan nañ baay bàyyi foofu nañ leen foofu lu gars yi mënti nii léegi nes mi da ngay yàqal ki nga indi ko ba pare nes mi mooy loolu waaw man loolu mooy suma naxaar. waaw ñu xamante ne ñoo am foofu noonu jaamu nañ leen bàyyi foofu suñuy dund seen jaamu ñun tam ñu xamante ne ñun tam fii tam dañ doon dund suñu jaamu nañu gars yi fii suñu jaamu man loolu mooy suma soo naka nga gisee ndaw si Gambie fii ndax am nañ doole. ndaw yi am nañ doole waaw ndaw ndaw yëpp ñun am am doole moom liggéey moo ko waral te ñun liggéeyuñu léegi nan la ñuy ah, gisee waaw liggéey bi. Ah, man déggoon ma ñaata liggéey moo fi mënti nekk waa fori na yow tey man Gambien la dama ñëw taxaw dama bëgg a liggéey ñoom doo ko fi amee loolu léeg loolu léeg gàcce la si man. te yow sa réew laa te man suma réew laa nekk. est-ce que gambe nena mi si rew jamul mu am doole fofu non ah deug deug deug deug bu fa amé doole sax nit moko fa amé doole waye man de suma rew mom suma rew mom deug deug deug liggéey la lay mëna santané mom wa kon ya jame nu ko doxalee won ndax ya jame mom nu ko lon doxalee moy lan béykat yi acca ana ngeen ñi ngi nii neen dem liggéeyi wa ci ala bi acca ana ana ana ñu nek si mbalit bi neen nek ci mbalit bi ana ñu scout yi ñu taxawé ne le loolu so loo ñu mën a wax jamono yaay ma ak jamono bi jamono yaay jame ak jamono boro dafa utee mhm. lu ko utee la mooy lan seen indépendance bi la ngeen xoolee ko maanaam maanaam comme ça ni moom indépendance daf leen jot mu am bëri yëpp ñu ñëw taxaw waaw ñun sa xale yi ku nekk boo daane sax da nga am mos five hundred daas waa ñu xool na xaalis boobu ñun lu ñuy xool avenir réew mi ñu loolu la ñuy xool xooluñu dara avenir réew mi liy jëmal réew kanam ñu loolu neen bëgg a xool loolu neen bëgg a sukuraat ñu jàppale tamit suñu nit ñi ñu xam te boo demee tamit nag nga fa fekkaat loolu waaw waaw am na ñoo xam dañuy dem ñu ñëw ñu fekkaat fi ah dëkk bi de nu meloon noonu la melaat waaw kon dafa mel ni kon ñun liggéeyam fekk ñun ñu ngay liggéey waaw yàlla moo ñu dafa ko doole bu so so comme nga ñu ne game yu si bëgguñu liggéey ndax loolu dëgg la. Eh, bëgg naa liggéey kenn naa ngi nii mhm. man moom <laughs> mhm. bëgg naa liggéey bëgg naa liggéey bëgg naa liggéey bëgg naa liggéey bëgg naa liggéey tere sama waajur tere ñëpp bëgg naa ko bëgg naa ko bëgg naa ko bëgg naa ko bëgg naa ko bëgg naa ko mhm. liggéey moo la amee loolu yëpp xar tabaski yeeg yooyu jooy yëpp liggéey moo la koy amee soo liggéeyul nag loolu yëpp doo ko am yes sila ba gërëm life story ma laa fi ni Gambia ah, fii mooy ah, Banjul di Gambia moom mooy capital of Gambia so mom moy uh, sun first topic ba fi ay eh, as a girl Life comme xam si season 5 episode 2 so girl Life la um, ñu ngi leen di jaajëfal trop uh, thank you so much for watching the girl Life story episode la si 3 daal di door rek ñu daal di ko indi Gambia Talents TV uh, Gambia Talents Promotion ya na moom online TV so um, ñu ngi leen di jaajëfal trop ci seen wàccuwaay war ba may jaajëfal trop Adam Chumbe yes Adam Jeng mom amal tay ci caméra bi maa ngi ko jaajëfal trop yes saras to you Queen and saras to Ibrahim Sanyang mom mo nekati di edit videos yi and saras all the ghetto life I'm gonna come they always uh, wait for the ghetto life xam nga si TikTok bi tamit maa ngi gis gars yi tamit xam nga ñu ngi over um, um, I mean appreciate ghetto life for noonu so shout out to all you guys all the viewers on TikTok Facebook YouTube yes but the full story is always on YouTube GTTV gamma Talents TV gamma Talents promotion rek ngeen daal di ko dimbali rek yes um, su nekkee YouTube rek ten subscribe leen uh, channel bi rek please da ngeen subscribe channel bi any vidéo bu ñu rek uh, da am notification solo nga subscribe laal bell bi rek so ngeen you will be for every video suñu dugalee Ghetto Life dot com so till next week uh, maa la seen xarit seen soppe Yusuf Ndour si diwaanu Banjul till we said have a great weekend and Ramadan Mubarak to you all